sama kilifa gi yaa ngi ci jàmm yaa ngi am bu baax ci loo nekk waaw man de dama doon wax tuuti rekk ci ñaawteef yi ci dëkk bi dëkk bi metti na tàng na tar na rayante yi mel na tëll ak mais ñun ban Sénégal lañ nekk xanaa nekk ku ñun réewu teraanga ban Sénégal lañ nekk ñun suñu réew mi benn dëkk bi amul sécurité ñaar réew mi amul frontière mbir yëpp a daanu foo jaar dugg ab dëkk nag ba amul frontière du neex a utal président du neex a defar mooy bu fi ni di gas foog ni di suul rek réew mi du ma sa baax tey ñiy def ñaawtee fii bu subaa nga dégg rey nañ fii bu sinaa subaa nga dégg rey nañ fii góor ak jigéen a fi am dëkk bi ñëpp chaque jour nga dégg koñ bi kii ray na diw ray na diw rey na kii diw rey na kii diw rey na kii ba kañ ba kañ. dëgg la gaa yi ngi naan peine de mort peine de mort mais peine de mort mënuñu ko ñun amuñu xol peine de mort ñun sénégalais ñun sénégal suñu mer benn fan la bu ñu meree bu ñu giifee pare nañ ci mais maanaam doonu tey ji loo xamante ni tey da nga naan loi bii la ñuy tëral peine de am na yeneen solution am na yeneen solution àll kaa ñu ngi ñii yàmbalang nañ fa def kaso souterrain boo xamante ni ku rey nit ñu dugal la fa fàtte la fa. boo ko defee léegi rey jeex ci dëkk bi boo fa condamné dix personnes vingt léegi xoolal léegi léegi léegi dootoo dégg sax koo xam rey nit mais dafa am réew dafay laaj organisation comme ni ngay organiser sa kër am réew noonu lañ koy organiser da ngay tëral say loi teg ku jalgati yoon nga teg ko ci yoon xamal ko ne ko lii la mais tey ku fi rey nit ñu jàpp la gisé la yóbbu la rëbës deux ans trois ans ñu bàyyi la nga génn. defaat naka su noonu ñu jàppaat tëj fii da ngay gis ko xam ne day nekk kaso 10 génnaat def leneen ñu génnaat ko ñu jàppaat dugal 6 mois 1 an mu génnaat nekkaat ci lëmbe mais loolu ba kañ organisé wuñ ci réew mi doomu fii ku fi rey nit ku ne dañ laa war a jàpp dugal la foo xam ne sa mbokk sax xoolal bu la bëggee gis du la gis loolu mooy dee nga parce que boobaa sa dund googu noonu dee sax du koy gën. nañ xoolaat jikko yi xoolaat seppi nit ñi defar suñ dëkk bi utal ko frontière ku dugg ñu xam ku génn ñu xam ab réew noonu lay doxee mais réew mi du lu la neex nga def ñu ne ah président bu ñu wootee jotee ñu woote ku ne jël sa place toog saye léegi looy defar ay télé ki ay kenn xamut te amoo sa réew amul frontière ku neex dugg ku neex génn lu waaye di rawale fii la koy rawale see Sénégal pourquoi lu ñuy tere Sénégal lañ koy rawale see mais ñàkk frontière moo ko waral na ngeen organiser dëkk bi xool ñi nga xamante ni carrément mooy ñeerax ñu xool ñii yan façon nit lañu identifier yii yan façon ñii fan lañ jugee ak lan moo leen tax a dëkk ci dëkk bi mais sa kër sax yow xanaa boo ko bàyyee yàmbalang ku jot dugg lu fa manqué yaa sa bopp ñu xante dëgg dëkk bi daal nañ xoolaat jikko yi defar dëkk bi defar xol yi ku def lu ko su dul noonu ñu teg la fi nga xamante ni carrément tey ji da lay ne sa dund ko ngay dund dee dala koy gënal wasalaam